yaa nga fa grand père wala da ngay des xaar ko fii. moo ñun suba dañoo am euh, kii euh, <laughs> suba ñun dañuy préparé ñun tamit. bon mhm. c' est moom c' est dans le cadre des activités de secteur euh, euh, mensuel mhm. ku nekk léegi commune bi ngay milité foofu ngay setal bu ñuy fusionné mooy deux voies liberté deux voies Cambérène yi foofu la nekk mhm. incha boobu la pare boobu xam naa waa Pastef Matam moom ñoo fay ñoo fay ñoo am gan bu mag voilà alors Guèye mu mel ni lépp sotti na pour rek ñi nga xam ne ñu ngi xaar euh, Ousmane Sonko mu ñëw war a teew ca Matam ngir amal fa set setal bi nga xamantene mom lañu la suba. inshallah parce que Matam nak dañ fa am représentativité bu am doolé mhm. manam force tranquille lañ la ko mën a té gouverneur bu bees bi installé wu na. te ku xool résultat yi na am Matam. Mhm. euh dëkk fa dëkk Fuuta taxul nga mom Fuuta de. <laughs> résultat yi ba mu génne am na ci parti yoo xam ne ca Matam ngoo. Mm-hmm. waaw dafa dóor bu baax a baax. sa xel sa kan lay dem. waaw am na fa ku fa nekkoon di menacer nit ñi. mu ne mu ngi xëppi bët ya. Eh, ma nga tey ma nga toog suba Sonko dana dem ba ne woon eh, di menacer sax képp ko voté wul eh, Pastef danañ la fekk dóor la. ah Moussa Bokar Thiam Moussa Bokar Thiam. moom dafa war a génn suba dalal. dalal le premier ministre Ousmane Sonko. Mm. bu fekkee ne premier ministre mais fekkee ne dafa dem nag pour militant yi ñun soxlawuñ sax mu koy dalal. waa Pastef danañ ko dem danañ accueillir seen président danañ def set setal danañ ko bale ba set hmm. danañ fa waxit la nga xamante mais bëri na mbalit nag gëy de est-ce que bale bi dina dina dina dina mën a non danañ ko setal ña daan bale ak ñu bale du benn mag ba bëri na bii bii bale patriotique la. <laughs> ah patriote dañuy bale boobu. bii bale patriotique. Ah, <laughs> day sax wecc te ñun sax duñ bale daf bokk suñu slogan. Mm-hmm. ndax ni ñuy bale mbalit mi. Mm-hmm. noonu la ñu fas yéenee bale mbalit mu bon mi nga xam ne ay. jëm doomu aadama lañu mbalit moomu moo gën a diis. te dinañ ko bale incha ndax mm-hmm. bale dafa bokk ci slogan wu patriote yi. foo njël kon nañu génn. dalal euh, dalal pros. mu dox doxam sol fel sol casquette <laughs> na patriote yëpp sol ay casquette yaa may dégg euh, dalal ko

na àll bi bokk ci Matam bu fa jógee danañ dem ba ginnaaw Tambacounda. incha pare nañ pour dem ginnaaw Ziguinchor ci village yi gën a reculé. d' accord fu am mbalit ñu dindi mbalit ma ba pare nag doogoon nag songu mbalit mu diis mi nga xam ne ay nopp la ñu am. am ay poste am ay compte yu diis a diis mbalit moom nag la ñuy xaar. pour ñu pare ko yow yow muy doo seeral dara. du ma seeral dara. Ah, ndax ñoom seeral lu ñu woon dara. <laughs> kon yéen fas yéene wu leen baale benn tafatal lu maye dara. ah doy na waar <laughs> dañoo wax ko baax. Ah. <laughs> Anne-Marie <laughs> gatsa gatsa ba si baale bi. Anne-Marie xam nga ni bu baax suba Matam lay lay lay xëy ngir mën a def bale national bi daal. waaw loolu euh, lu ñuy rafetlu la euh, en tout cas acte citoyen bu noble la jëm ci wàllum euh, set setal dëkk bi. Mhm. juste bu ñu koy annoncé boobu moom mooy fekkoon Casamance parce que d'ailleurs même première kii bi première journée bi foofu la ma fekkoon mais gis naa jeunesse bi nu mu nu ñu engagé wu ci mbirum set setal amoon na sax yenn bërëb yoo xamante ne. Mhm. kenn daan woon dem foofu noonu di set setal wala mbalit bi foofu lañ ko doon tuuree mais keroog mobilisation biñ ci defoon demoon nañu bale foofu noonu yëpp ba mu ba mu set. Mhm. je pense que Ousmane Sonko war na see profité bu baax a baax parce que comme que am na benn connexion bi nga xamante dox na digganteem ak jeunesse bi te à chaque fois bu wootee dañ koy daal di wuyu si ci ci ci ci ay je pense que loolu euh, bokk na ci li nga xamante moom moo nar a éduquer euh, société bi. Mm. tey tey boo génnoon ci mbedd bi dina am di nga gis kenn koo xamante ne peut-être dina yore mbuus naan ndox bi ba pare sànni ko ci. benn bi wala ba set. waaw wala am lan lan moo sensibilisation boo xamante ne euh, fa takalat sensibilisation la wara la wara a parce que bu fekkee ne tey dañuy balé dañuy balé fini nii suba boo ñëwaatee ci lieu bu ñu balé won nga fekk fo encore mbalit amul ben njëriñ. Mm-hmm. donc je pense que ñi ñi seen bop ñom ñoo euh, euh, d'autant plus que légui jël nañu ay comment ça s' ay mbalit ay fi ñuy defee mbalit bi da koy samp fépp ci Dakar ak ci réew mi. je pense que ñi ñi légui ku nekk sa bir kër mm-hmm. war nga fa am ben ben seau wala ben bërigo boo xamante ne foofu ngeen wara def mbalit bi mm-hmm. et bu fessé ngeen dem tuuri ko ci fi nga xamantene ne di ci dépôt yi mais bu fekkee ñi nii léegi ku nekk da ngay naan café nga sànni ci mbedd mi wala kële naan sa seen ndox nga sànni ko gëlal bi ñëwee mu daal di koy puus mu dem daan foo fu fu fu kenn xamul mm. loolu du bokk ci li nga xamante ne moom mooy yombal euh, liggéey bi mm. comme que léegi initié nañu ay journée set setal na si ñëpp jàpp képp koo xamante ne naan nga café wala naan naan nga ndox nga daal di mën a jël mbuus bi dem sotti ko ci benn mbalit wala nga tey ko ba keroog bi ngay gis mbalit nga daal nga dem na euh, defi ko foofu noonu pense que des fois damay gis nit ñi yow nga dugg ci benn oto nga ko ci biir oto bi nga jël ko nga sànni ko ci biti mm-hmm. mais boo ko sànnee ci biir kan mooy koy for sànni ko ci biir oto bi nu mu tudd apprenti bi boo cee ngoon wala bu xëy loolu andamee buy euh, bale euh, mm-hmm. mbedd yi du chaque jour lañ koy mën a def mm-hmm. loolu day daal di indi ay problème wala dafay du en daal du yombal liggéey bi ñi nga xamante ñoom ñooy nekk tout le ci mbedd yi di koy bale te ay jàmbaar lañ parce que yeneen heure yoo xamante ne nit ñi dañuy dañuy nelaw ñoom dañuy nekk ci mbir yi di di bali nañ leen jàppale yombal leen liggéey bi. am na solo alors euh, comme ni ko soo ko fas yéene defee ak ay euh, ñooñam dem bale fa nga xam ne moo di maatam ba mu set police aussi ci beneen wet ba mu ngi def euh, jamono ji ay rafle yu am solo bu ma ko mënee waxee noonu mooy opération ay coup de point yoo xamante ne jamono ji commencé na ko ca Géejawaay téré ci rifisque dal di continuer Grand Yoff naka noné ma nga ci ties ngir mëna ñonga lepp lo xamantene modi sécurité bi tax gis nañ ni jamono yi ci digënté août ak septembre am nañu fukk ak juroom ben nit yo xamantene ñak nañ seen bakkan ci mbiruk agression yo uh, metti yo xam dund non nañ ko ak askanu uh, Sénégal est-ce que japp nga ni peut-être uh, ni la wara yam est-ce que gën ko yaatal ba nga xamantene ni dina gëna ñong te dina continuer ci askan bi ba seen xel mëna dalat parce que jamono yi gis nañ ni and nañu ak fitna na wala bok sen xel dalatul. wa bon jamono yi mom askan bi yeb sen xel dalatul parce que surtout recul de sens meurtre crime yi crime en mhm. sanglanté crime de sang affaire yoy nonou fa doy wa demee ni Sénégal musul dund euh peut-être te si ëpp ñu koy défé ci arme manam pistolet. arme pistolet man dama ragal euh, arme yu Macky Sall séddale la woon. est-ce que maa ngi koy soupçonné. bokk ci ñu ngi mais est-ce que ñi ay ay ay ay arme feu. tuerie yu am ba arme à feu. braquage woon taximan bi fa la ñu waat fàtte woon taximan bi Macky Sall nervi jàppaguñ si kenn te war na leen séddaloon ay arme xam nga tamit yenn enquêtes yi euh, bon dafa yéex suñu côté ñu xool Macky Sall dafa bàyyi arme yu bari bari xaw ma 45 milliards armement la xaw ma xaw ma stock boobu am na yu mu dissimulé yu mu dissimulé euh, du Dakar rek de en ah, région quatre région Sénégal yëpp la tasoon armes yi. Mm-hmm. loolu nañ ko xoolaat. mais loolu lu koy firnde nag grand père. ah non contrat d'armement bi xam nga tamit. Euh, c'est vrai que déggoon nañ fi 40 et quelques milliards ñu dépensé ci ay armes. mais loolu mais ba tey est-ce loolu war na mën a justifier que ni nit ñi ñu ngi doxantewoo ak arme. du mm-hmm. a peine de mort mais tamit mais tamit bon peine de mort bu amul ji nga Sénégal ji nga justice bu yéexee peuple bi mooy defar boppam justice peuple Sénégal peuple boo xam ne kenn ko noonu. mais commencé na jamonoy Macky justice amuloon peuple bay jóg defar boppam justice. Euh, mais peine aussi est-ce du loolu loo xamante luy peese lu dis la ci euh, balance. buñ ko ci am na ñoo xamante ne peut-être euh, buñ leen toppee li nga xamante ne moo di crime. Mm. wala meurtre mën nañ dem ba ci biir ñu ne leen yéen leen dara mais bu peine amoon ñooñu ñu mm. faat seen bakkan aussi enquêtes yi continuer est jàppoon ni loolu buñ ko woon ñëw maanaam peine de mort nekkul peine euh, mooy jugement am na sentence sentence bi mun nga toog vingt ans sentence bi exécutoire bi du ñëw mm-hmm. waaw léegi euh, bu nekkoon na ne peine ñoom nañu xoolaat dossiers yi moom la américain naan cold case xam naa delloo cooytuwaat dossier ndax am na preuve wala amul preuve xam nga lépp nag loolu bépp décision boo jël mënul ñàkk ñaanuñu ko yàlla nag erreur moom marge d'erreur un pour cent mais nañ def peine ku rey ñu rey la parce que dafa nekk fi naan non def na deful après ko parce que man ñima gis yëpp crime kon ñun mm-hmm. euh, on a été ex détenu politique euh, ñi crime de sang ñiko def ñu ci bari 20 ans la leen tëj de ñu bàyyi leen de. Mm-hmm. les perpètes Sénégal amul perpète. d'accord manam perpète dafa am ci moo dañ ko waaw mais mais perpète mo la ni rek. Mm-hmm. mais suñu né nee perpète mooy condamné à vie. manam yow ci prison nga wara dé xam nga nag boo ko ñu naan ki dafa soxor mais bu lo waxé waxee lu mu def. ay ñetti nit la ray wala dafa am kum violer rendiko xam nga kooku mérité na perpète. mais mais ñu ñu ko naan na perpète yëpp vingt ans la tëdd après ñu bàyyi leen. Mm-hmm. xoolal léegi bu la neexee nga xool def sa propre recherche euh, justice Sénégal dans les xool ñu ñu ko noonu ñu defoon ay crime de sang rey nit ñu condamné leen perpète dans les années deux mille ñu ngi si deux mille vingt quatre nag. Mm-hmm. sooy gis sooy xool ku des kaso ba léegi. su bu dee cent lañ benn dix lay doon. d' accord waaw alors Guèye yow jàpp nga ni peine de mort c' est ñu def ko fii ci Sénégal ak erreur yi nga xamante ne xewoon na ko te ñoom ñii jàpp naan ñu ëpp ci ñu ko dund ci sénégalais xam nga loolu moom peine de mort dafay am ay ay étapes yoo xamante ne moo ko war a jiitu. Mhm. parce que dafa diis ah. diis na de. parce que tamit yow yaa rey te reyuma ñu jàppale rey. donte que bakkan dafa fort waaw bakkan dafa fort. te loolu hmm. war nañ ko mën a utiliser parce que bi ko daan amoon na Sénégal ah. Hmm. il faut que bu ñu bu suñu bopp am na fi jot a jugé leen au poteau dóor leen bal jamonoy Senghor. ñaar rek la ñu am na fi deux fois Moustapha Lo def nañ ko ko am na keneen ki rayoon Demba Diop. ki rayoon Demba Diop ñaar yooyu rek la ah, muy ñaar ñooñu loolu xew fi quoi. Mhm. donc peine boo mort bi ci Ablaye Wade sax defe lañ ko dindee. 2004 2004 la fa dañ. Ah, je crois donc abul waruñu ko dindi mën nañ ko delloosiwaat. pour ñëwaat mais buñ ko delloosiwaatee day am ay jalon yoo xam ne moom la parce que mhm. du charge boo xam da ngay ñëw rek. Mhm. ñu ne rey nit ki. mais yi am fan yi crime yi am wax dafa ëpp. di remercier di police fan yi gis naa ne ñu ngi def liggéey am na dalal nag ci semaine bii ñu ngi ñaan yàlla ma continuer accéléré nañu mm-hmm. mais ñun bi ñu gën nekk ay jeunes militaires à l'époque dafa am lu ñu daan def benn benn benn état major ay militaires daan jox dañ daan joxe benn effectif commissariat bu ne armée jox ko benn groupe bu fi kenn jotee ñu def patrouille commissariat militaire yi dañuy ànd ak policiers yi ñu renforcer leen mm-hmm. léegi nag bu dee waa yëmbal la kaa yëmbal joxe bu dee wakaam waa wakaam

maaru pexe yi day bari stratégie bandi mo bari ba nga xamantene euh ah, ñun de ñi ngi sant yalla commissariat am nañu ben euh, adjudant bu ñuy wax euh, John commissariat yëmbal comico. Hmm. il est efficace. ma ko féliciter vraiment koku do do du waxaa agresseur. Hmm. ak bande ak yooyu non non non non non. amna sa solo da lay Ange Marie waaw alors lan nga ci euh, xalaat donte nga gis nañ jamono yi ay accalmie yoo xam ne mi ngi commencé am ginnaaw ba ñu raxasee li nga xam ne moo di police nationale bi mais Guèye moom nee na peine de mort. non man euh, euh, peine de mort moom musuma see ànd te duma si ànd. Mhm. parce que suñu justice bi quand même wax ma ne parfaitul mais am na am na peut-être foo xamante ne tollooguñu fa ci wàllum ultime preuve. pour ñu mëna wax né kii nii dëgg-dëgg moom moo def pour mu dem sa ñu jaral def ko peine de mort mm. parce que euh, exemple ya nga fi à chaque fois ne serait-ce que semaine bi ñu wessu rek amna ñeneen ñu nga xamante condamné nañ leen à perpétuité mm. mujjee lañ ci libéré mais imagine bu fekk né peine de mort lañ doon appliquer kon ñoo ñoon kenn waxatul seen wax parce que bu fekk né même diire bi rek lañ doon xaar ñu condamné leen ñoom bu ñu leen condamné ak li nga xamante ci lañ leen libéré daanaka 10 ans yi sax jotoon na na sax bay bay bay mot donc fofu nonu ay risque la yo xamante peut-être mëna a régler régler une partie ci li nga xamante ne moo di problème bi mun mhm. na di seede ñu bëri ci wàllum agression yi mais ci beneen côté bi tamit mun na jur ay lorange yu bëri bëri parce que tamit ñi nga xamante rek mooy mooy différence bi dañoo jàng mbirum yoon te bu ñuy atee tamit dañ koy teg ci li nga xamante ne moom la yoon santaane mais yow booy rendre verdict bi maanaam yow boo tëddee sa conscience lu mu lay may loolu ngay loolu noonu ngay joxe verdict bi mais ñoom mën nañoo

pense que lii liy yokk ah, mbirum agression yi wala kaay yi mooy am na ñu bëree bëri ñu nga xamante ne fii ci Sénégal port xam pour nga wuti ko yore yore nga nay lu compliqué pour nga pour nga mun see am ñi yor euh, te am autorisation bi bëriwuñu léegi nag bu fekk ne man damay dama dama ne koñ bii may dugg nii ñu fa yor arme bëriwuñu damay am fit dem foofu noonu mais bu fekkee ne yow da nga xam ne koñ bi ngay dem bu fekkee ne cent personnes ñoo dëkk ci koñ bi soixante-dix yor nañoo yor nañoo ngànnaay doo dugg foofu doo dugg foofu parce que xam nga ne boo jàkkaarloo kii nii du koy du koy du koy tóor keneen ku mën na féet mën na la féetee ginnaaw ne la tël donc c'est parce que tout simplement am na ñoo xamante ne ñu bëree bëri xam nañ ne ko yeneen ko ñu ñuy dugg ñu fa am arme bëriwuñu hmm. ba tax ñuy am fitte ñoom bu ñuy dem dañuy yore dañuy yore arme xam nga bu fekk ne yow da nga yore am ma yore arme hmm. booy dugg ci biir koñ bi da ngay moytu lu bëri bëri donc loolu benn problème benn la ci problème yi nga xamante ne moom moo tax cas cas de meurtre bëri beneen bi am na si ñu bëri ñoo xamante ne def nañu arts martiaux ñeneen ñu jógee ci biir armée bi donte man nawlu naa leen bu baax que xam naa ne ku jógee armée moom di am na yeneen comportement yoo xamante ne da nga am pour nga jëfandikoo sa arme sax ko ci nit lu lu lu waaw lu jafe lay doon mais nag léegi problème bi fu mu féetee mooy am na ñeneen ñoo xamante ne dem nañu doon ay ay du bokk ci ay gang da ngay xëy tey su suba sa yaay ak sa papa dem liggéey wala seen famille dem liggéey yow nga xëy nga génn ñu yaakaar ne da dem liggéey fekk da dem fekk yi fële na li tuxkat bon yi ak yu zaar noonu léegi nag boo si jógee yow fekk yow jël nga sa dose boo duggee ci biir koñ bi am na ñaata yoon lañ i xel mhm. donc beneen côté bi tamit drogue bi nga xamante ne mu ngi circuler ci biir réew mi mhm. boobu tamit war nañ kaa limiter man je pense que foofu parce que ku jëfandikoo drogue moom kay. boo tagaliwoo ak sa xel rek musiba moom pour nga def ko moom dafay mel ni sa ñu jox la benn kaasu café nga naan ko. am na solo alors euh, ñu bàyyi xel aussi ci li nga xam ne moo di reddition des comptes bi gënu ko yàkkamti ba gën ko yàkkamti ki nga xamante ne moo di peut-être euh, wala boo ñi nga xam ne bokk nañu ci Pastef te dundoon lu ci ëpp ci euh, loolu mën naa ci boole sax grand-père Ousmane Sonko annoncé ko ne du yàgg dara wala boog ci semaine yi ñuy ñëw nii.